mbokki taaliba yi yéekan yéen waa kër xaadim rasul yéekan yéen waa kër Seex Masàmba yéeg yéen waa kër soxna Isa Jéey yéen waa kër sëñ Masàmba Kura Juuf man sëñ Mouhamadou Lo ci jumaa yi ji ci sànqaayu ngaab gi maa yëkkati samay kàddu di wax ci ngaabu ak waa Ngaabu jullikaay bii ñun toog toog nii jumaa ji euh, sëñ Masamba Kura Juuf moom la fi sëñ Tuubaa fekkoon bi mu ko fi fekkee it sëñ Masamba Kura Juuf defar barab bi ba mu neex a nekk bi sëñ Tuubaa génnee ñëw nekku defar lii ñu ne ko sëñ Masamba Kura Juuf mu ne ko def naa ko xarit bis ni ki tey sëñ bi julli fi gee ba war a dellu jëm njaareem garab yeeg suuf yi di jooy naan ko ku mel ne yow mësu fee ñëw te ku mel ne yow dootu fi ñëw sëñ bi jël xalimaam samp ci daa ji wiccax mu dal ci xobu sànqaay gi moo tax ñu naan ngaa bu sànqaay xob bu ñëw indi na daa yi sëñ Tuubaa jooju kon loolu sëñ Masamba Kura moom la ko defaloon sëñ Tuubaa it bi mu demee mbax xam ne barab bii barab bu lëndëm la te itam war na koo leeral ci diine war na koo leeral ci yee nit ñi war na koo leeral it ci jàppali leen ci ci nuñ mën a liggéeyee daan seen doole dunde seenu ñaq doon nañ ko def sax waaye mu gën koo yaatal ki la deme waxtaan ak ma sàmba Mbàkke rakkam nekku kat barab bee kat damaa bëgg ku ko leeral nekk fa jëmbat fa lislaam te it am satuloo moom laa ci jàpp ne moo war a man loolu te moom mu koy war a mën a defal sëñ Masamba booba ci diggante mag ak rak ni mu ko doxalee eh, ci digganteem ak eh, sëñ Amsatu mu jàpp ne ndax eh, at yu néew na te fii ruqe na mu jàpp ne loolu dana néew ci atam mu ne ko sëñ Tuubaa ne ma sàmba ab làmp lu muy jariñ mu ne ko niit ci ak lëndam leeral mu ne ko Amsatu mooy làmpam ngaabu kon sëñ Amsatu Lo mooy làmpam ngaabu moom la fi sëñ Tuubaa indi ci seex yi mu fi njëkk a indi mboolem seex yi mu fiy déggaat ñu am fi yëpp yëpp yëpp ginnaaw sëñ Amsatu lañ fi ñëw waye seigne am satu la fi seigne touba yebal amna ño ñoo dañu gis nga bu xam seigne touba amna fi keur ñu ñëw wut si fi keur waye keur go xam seigne touba mo waru fasam ñëw ba agsi ci dëkk ba waxtaan ak borom dëkk ba wut ko fa Sénégal gep ba aduna sépp ku ko fi gis fu fi am nañu ko wax fi la am bam ko amé seigne Masamba Kouré ànd ak mbokam jox ko ko boba ak léegi kenn ku fi mësa ñëw bu wa nga bu wala nga bëgg jël seen suuf wala nga bëgg mom seenam dëkk wala nga bëgg leen a amu fi waaye fa joxoon sëñ Touba ci euh, li tàmbalee sëñ Modou Moustapha ba agsi ci sëñ Abdou Khadir Mbacke yàlla dogal na diir booba moom barab ba mu ñu ngi fi daan nañ fa ñëw sax nag ak nekkam daana yebal sëñ Basiru daana ko yebal ak sëñ Abdoulaat ñoom ñuy ñëw ci barab boobu jamono yi yooju tase woon nag feebar bu ñu wax peste comme bii xew nii euh, euh, waaye da doon wax ne sama tookarub ñaam bi ba ba ca ngaabu de maa ngi ñaan ku fa teg sa tànk yàlla musal la ci feebaru peste bi ba am na ñu doon ñëw ngir faju am na doon ñëw ngir mu bañ leen a dal ngir barkeb sëñ tubaa ba mu wax foofu barab ba nag sëñ Saaliw Mbàkke moo ko feeñal moo ko defar bi ñuy dem man lu may wax lu leer naa ñi leeral moo ma tax a jóg xuloowuma xeexuma werantuwuma waaye dëkk bi kenn dama fee gënt dëkk sama maam moo dalaloon sëñ Tuubaa sëñ Amsatu sama maam la ndax moo topp sëñ ma Lo Isa te sëñ Modou topp sëñ Masamba mu indiwaat fii sëñ Ibra Lo rakkam kon ñeenti doomi soxna Isa Jéy yooyu ñoo seq ngaabu fekk fi ma Masamba Kura kon ñooña bu may wax kenn gënumaa mën a wax kenn gënumaa war a mën a leeral ci liñ def sëñ Saaliw bañ ko koy jox foofu man alaaji Ibra Tali bàyyi sëñ Anta mi fi nekk loon sëñ Saaliw nijaay Moussa maalow ak sama bàyyi Sëriñ Loo ñoo ànd dem fekk ko bañ demee mu ne ah yéen waa Ngaabu yéen day yéen a seere woon sëñ Touba ndax sëñ buur seen ko mën fen di moo seere woon sëñ Touba yéen waa Ngaabu day yéen a dalal sëñ Touba ndax sëñ Massamba Koura moo mayoon kër sëñ kon nag sant naa leen ci loolu li ngeen jox sëñ Touba danaa ko defar li ngeen ma jox dinaa ko defar waaye lépp laay boole defar ba mu egg ma delloo leen ko du ma yem ci li ngeen ma jox rek daal di daal ne ngaa bu dey sëñ Touba def na fa lool fu du Touba defu ko fa bu mu waxee ngaa tuddee ngaa bu jël kaala gu weex muuroo ko ab diir ñun ñëpp kenn ñi mu wax seex béycu cun la fa fekk mu ne tudd leen yàlla tudd leen yàlla nit ñi ne alhamdulilahi rabbil alamin mu daal di koy muri kaala ga boo seex beecu mu ñëw mu ba yëkkati million jox ko ne ko dama bëgg nga ànd ak ki waral a natt dëkk bi muy mbaw dégg naa wàcc na liggéey yàlla ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana bi mu ñëwee mook sama benn nijaay bu doomu nijaay bu nekk fii eh, sëñ sëñ rak ko Ablaye Ndaw ñoo ñoo Alaaji Ndaw ñoo ñoo ñoo doon natt dëkk bi kon sëñ beecu cuun ak mbaw ak sama doomu nijaay boobu ñoo yoroon nattu dëkk bi sëñ saaliwu leen ko sant xaalis ba ca def moo ba ca am moo ko fa def kon sëñ fa saaliwu fàttewut njabootu sëñ Masamba Kura bi mu fi nekkee itam bu gàmmu jotee wala tam xarit day jël ay L200 def ci ay ñam ne leen yóbbu leen ko ca barab be sànqaay ga yóbbu topp leen jàkka yi ak daara yi di ko fa yóbbu mu di ko def sëñ saaliwu ca jamono boobu moo ne ngaabu de sëñ tubaa def eh, manam ku dekk ngaabu dekk ak yalla seigne beccu ne dama bëgg dekk ak yalla kon kat ba ngaabu nan ma jox kër ngaabu ñu jox ko fi kër mu ñëw gi seigne salih di liggéey loola moy bu gam jotee muy jël ay 4x4 ay L200 def ci ay ñam yëkëti ko diko wër ci daara yi diko fa joxé comme nam koy defee ci armali Touba yi ak police yi ak ak ak ak ak yenen barab yi diko ci roy ba ci yag mu ne lii day soxna Ayda Diallo xam naa ne lima bëgg ngaabu te seigne salih wax mako soxna Ayda Diallo moo ko man ta moo koy defal daal ko koy sant soxna Aida Diallo di ko def def na ko ñeenti at su seex bi door fee jóge soxna ay Aida Diallo bàyyiwut ba seex Béthio Thioune jóge bi mu ñëw beru ngaa ñeenti at mu door fee jóge muy daaw ren tege ci muy muy juróomeelu at bi e, e, e, ngaabu nag ba fi ñëwee na na sëñ ba doon def da ko yokk waaye tàmbali bi sëñ Saaliwu ko tàmbali woon sëñ Béthio ñëw di ko ci aw soxna da ñëw di ko ci awaat ñun waa Ngaabu ñëpp a ngi nii chef de village baa ngi nii ñaari chef de village yaa ngi nii xal yi fa yi fi nekk nekkal fi suñu am sa tuloo ñoom ñëpp ñoom it li may wax seere nañ ko jumaa ji maa koy jiite ay say mag ak say baay buñ accès ak say maam di la jiital soo demee bay wax war ngaa wax ngir yàlla waxuma ngir farfarloo waxuma ngir fay bor waxuma ngir mer waaye nag Ngaabu dafa am ñu ci wax te xamuñ ci Ngaabu dara boo duggee sit boo dugg ñu ngi naan ngaa bu nii ngaa bu naa ba am ñu may woo fii ba ay Angleterre ak Écosse di ma laaj naan ma mbaa dara dara du fa xew mbaa naa nga ma ne leen jàmm doo nga fi xew li ñuy wax ñi ñee koy wax ci àll bi mais fii jàmm fi xew bari na nag lu ñuy wax ci ngaabu te dara amu ci man sëñ Modou Lo maa ko wax te lii may wax nii ñaar dong laay def seere wala boog dana ñett sax muy ci diine sëñ Muntaxa mi nga xam ne nii yàlla ko yàlla yàggal fi lool lool te wéral ko ba lim yéene liggéeyal sëñ Touba liggéeyal ko sëñ Basiru yàlla may ko mu man ko ba eggale ko te ànd kook taalu bi yëpp. bu ma noppee dama ciy teg sëñ musaa Nawel mi nga xam ne mooy sama bunt ci sëñ Touba sëñ Moussa Basiru boole ma ak moom réeroo wuñ ci lu lenn waaye sama dëkk la maa ko war a lijjanti loolu sama man la engagé maak samay bokk. waaye nag sëñ Muntaxa lu muy dégg lu jóge ci man daa war a leer sëñ Moussa Nawel lu muy dégg lu jóge ci man daa war a leer maanaam nag euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane euh, bala ngaa wax sikkas jàmbur na nga wax sa sikk te nit ñu ngi wax ci ay sikk sikk yoo xam ne nii la ñuy bari na loo xam ne ñu ngi koy wax te dëkk ngaabu yor baatam ngaabu sëñ Tuubaa indi leen fi ànd ak sëñ Masamba yëguñu ko tiinuñu ko gisuñu ko te seeni ndaw ñoom ñëpp ña nga fa man maa ngi wax jii li ma doon seere ci suñ Moussa Nawel ak suñ Mountakha ñi ma am maa ngi yëkkatiwaat président Macky Sall teg ko ci sama wet di ko seere nga xam ne li ma wax bu doonoon dañu ma war woo tey procureur de la république bu ma wooyee lu ma wax benn dinaa wax fukkam mu gën a leer kon xam naa li may wax soxna Aïda li mu def ngaa bu kenn nit mosu ko fee def kenn mosu ko fee def te li ñuy wax ne ngaa bu nit boo yoree sa di wax sikkas jàmbur boo ko dee wax bu doon bu doon bu doon def fukki fukki foo wax nga fukk xanaa am na am na ci juróom yu baax wala juróom benn yu baax mais liñ wax ci kenn ku nekk lu bon ngay wax ci moom te koo bari na ci dëkk bi ci àdduna si ñoo xam ne nii ñi ngi wax ci soxna Aida Diallo fu nekk ci àdduna ñi ngi wax te bari na ci ñoo xam ne nii seen mënuñu seen seen jabar wala seen doom wala seen rakk bu meloon ne soxna ay da jàll ñu sant yàlla ñu ci bare bari ku ci nekk bari na ñu ko bëgg a def def soxna bari na ñu ko bëgg a def rakk bari nañu ko bëgg def doom loolu nag su amut yàlla def ko ni mu ko def am na tuuma yu baree bari yoo xam ne ni boobaak léegi damaa am kilifa sëñ Moussa mooy sama buntu teyit dafa noppi ma noppi waaye nag lii may wax waxuma ko ci sëñ Moussa waaye maa ngi koy wax ci sama dëkk bi ngaa bu sama maam moo dalal sëñ Touba moo dalal ku fi santuloo kon su ma toolee ba ñi santuloo jiital ma ma nekk seen kanam di jiite jumaa ji su may wax war na maa wax li ma xam te raqib ak atit laa gën a ragal ci ku yàlla bind bu dee lu baax ñu ngi koy bind fii bu dee lu bon ñu ngi koy bind fii kon ñooña laa gën a ragal ci ku yàlla bind kon seere nit sax boo ko defee nit ka mën na faa mën ngaa seere sa baay génn fee sa baay néew fa mën ngaa seere sa sëriñ génn sa sëriñ néew fa mën ngaa seere sa sa sa jëkkër génn sa sa sa sa jëkkër néew fa mën ngaa seere sa sa jabar génn sa jabar néew fa waaye ñii moom foo nekk ña nga fa yàlla foo nekk ma nga fa sëñ tubaab ba muy jàngale tomb da wax ne tawhid de mën nga cee bind téere yoo xam ne sax mën naa toll ne alxuraan wala mu ëpp ko waaye ñaari tomb yi na nga xam ne foo ne yàllaa nga fa na nga xam ne lu am yàllaa ko dogal mu jeex tawxiit a ngi kon loolu su amee yàlla mi ma tiim xam ne bu ma eggoon lu may denc du ma ko waxagun waaye am na loo xam ne nii wax nañ ko ci dëkk bi wax nañ ko ci soxna Ayda Diallo sama digganteeg alquran dara amu ci billahi lasi laa ilaha illa huwa soxna Ayda Diallo tudd doom ngaabu takkut ab say ngaabu Saliou Samb moo ko takk ki ko jaayoon xar nga ne Euh, nday a Booy Adja Dégeen Fay mami ñi ngi taalibu sëñ Basiiru la moo jëkkëram ci ñi doon tool toppatoo wàll wérgu yaramu waa kër sëñ bi ci amoo kaat mooy borom këram soxna si ba ñuy tudd doom yaag takk say ab perfusion lañ ko sampal euh, mu tëdd fi mu tëdd mënu faa jóg kon suñ accès ñee jël ay image di ko yóbbu ci suñuy kilifa ñi ñu fi wax ñëpp su xañ na kuñ fi dem ca moom suñ kilifa la mais suñ jëlee dara yóbbu ko ci suñ kilifa te li jël ñi ko jël eh, baaxut jox ko kilifa gi bu kilifa ga yóbbawaatee ci geneen kilifa itam bu àgg arrivé ba eh, eggee te arrivé ba fekk départ ba baaxut it sëñ ba la may gis du doon lu baax te sëñ bi kenn waru koo wan lu bon sëñ mun Muntaxa buñ leen laaj kër sëñ Basiiru fii ci ngaabu eh, fii sama kër gii lay doon kon fi joxoon ab lettre na yóbbu ko daaru mi nam sama kër nga koy yóbbu fii sëñ Basiiru moo moo moo moo sañ ci kër gi ci ci ci ci ci ci boole ko sëñ sëñ sëñ sëñ Mbay Diouf ak sama sama baay mu jox ko fi kër boobaak léegi baatub sëñ Basiru moo fiy dox bi mu fi jógee sëñ Moustapha Basiru fiy dox bi mu fi jógee baatu baatub sëñ Muntaxa moo fiy dox ba fii may wax ak yow ba fi sama jógee xel koom ju sëñ Moustapha Basiru santaane ñetti camion danaa ko maa maa koy gaare ci ngaabu ak biis ak oto yu ndaw yóbbu danañ fexe ba suñ dara du manqué ndox dong lañ fay soxla kon foofu bu ñu nekk kër sëñ Basiru boo liy dëggal loolu kër sëñ Moustapha Bassirou ba ko sëñ sëñ Bassirou euh, rëddloo Baye Bassirou Seck ba mu egg sama kër Baye la ca teg maag sëñ Abdou Akim ñoo janoo benn ongulet ak ahlu minam taqaloog sëñ Abdou Karim Touré kër sëñ Mountakha sëñ Abdou Akim moo dox sama diggante ak moom kon lu wax ci daaru minam xam naa ko jumaay daaru minam jooyu sëñ Mountakha ji ni mu ko defarawaat ba fi sëñ Moustapha Bassirou nekk maa ba may yor caabi yi aw ma fukki at maag Baye Modou Mbaye Xandi ñoo doon seddoo caabi yi ndax Baye du mbay Xandi bàyyi Abou Mbaye ak Mor mbay mag la woon te booba mënul woon waxtu wu jot mu ñëw kon léeg-léeg su tardé wala wala wala timis munta ñëw wala suba teel man maay teel a yow dem noddu julli eh, tëj caa eh, eh, kii bi jumaa ji bu guddee ma bàyyi <laughs> ba kilifa yi naafila ba noppi ma door koo tëj kilifa ya fa dàq ka fa dàq ëppoon lu muy naafila nag sëñ Abdoulaye Jaxate la duma ko fàtte ba léegi <coughs> Baay Mat Silla Jaañ moo yoroon daari kaamil ji ak barabu sëñ Basiiru euh, Euh, barabu sëñ sëñ kër sëñ Muntaxa euh, siñ Basiiru gi Baara Gueye moo ko yoroon boobu ñoo Moodu Mbooj jëwriñu sëñ Muntaxa ñoo fa nekkoon Bas Bal jëwriñu sëñ Moussa Nawel ñoo fa bokkoon nekk jamono yooyu kon du léegi sëñ Moussa ci ron ron jumaa jooju sëñ Muntaxa fi laa jàngi alxuraan ba walaatu jàddiloo bàyyi mat moom bàyyi mat sëy moom ma doon jàngal bàyyi mat sëy amee ay tukki mu doon dem sëñ Moustapha Basiiru bañ ma koy jox juróomi at laa amoon bi ma eggee wala walaatu loo mu yëkkati ma teg ma ci loxol euh, baay ma dun Ture diggante kër sëñ Basiiru gi ak kër sëñ Muntaxaa gi kër gi fi nekk fa laa jànge alxuraan ba wàcc alxuraan bi ma ñibbee sama jël ma teg ma ci loxol sëñ Murtala eh, caatum sëñ Touba mu jël ma teg ma ci loxol sëñ Seexloo moom sëñ Daam Abdourahmane ay doomam maak ñoom ñoo jàngandoo ñoom ñëpp xam nañ ma xam nañ sam lu ma nekk xam nañ ko ma jàng ci al asar bu sëñ Murtala boobu boo ma fi jógee ngaabu laa jàngale gone ngaabu yi bari nañu ma ci jàngal diigaan alaaji Mamadou Sob ak njabootam bari nañu ma ci jàngal njabootu sëñ Omar gi daara ja maa ko ubbi ba ma fa jógee Dakar noonu laa fa jógee ñëw nag bi sama baay wàccee liggéey ma am yeneen liggéey yu yu ma ko war a wuutu ba tax la ma mënoon mënatuma ko ci wàllu njàngale mi looloo tax ma ma ma ma ma ma ma arrêté loola nekk ci leneen waaye ji jëfe ndigal bàyyi tere ci loolu rek lañ nekk li li tax ñuy wax nag ñu jàpp ne aw ay dafee am ak dañoo war a rey nit ak dañoo war a taal nit ba ma dégg ay ñoo xam dañuy menace yooyu di ko def ñooñu ñoo gën a tax may wax ndax loolu suñ ko suñ ko waxee bés buñ fi rayee nit wala ñu taal fi kër nit lépp ci yan bi Sëñ Muntaxa yan ñëpp xam nañ ne diis na waaye danañ ko dolli ab yan ndax daañu lu mës am ci jamono Sëñ Moodu Moustapha ba agsi ci eh, sëñ ah, sëñ Sidi Muxtaar amu fa tey am na ci jamono mun Muntaxa kon loolu kenn bëggalu ko ko su boobaa it sëñ kër sëñ Basiiru ñoo ci moo ci ëppalewaat ndax ndax ndax ndax ci kër sëñ Basiiru la bokk. léegi kon tey jii waaw mu waa ngaa bu kay ñu ngi nii laaj leen ñoom ñëpp ñu ngi nii ñoom ñëpp neen la ñoom euh, soxna Ayda soxna Ayda man sëñ Modou Lo maa la ne ñëwal ngaabu sëñ Modou Lo imam mm-hmm. ñëwal ngaabu kenn ku la mën a teye ñëw ngaa bu amut waa boo ngi nii tey dafa doon marché bi genn wàll gépp dem ci marché bi waaye ngaabu ñëpp a ngi nii ñi sant loo ñëpp ci seen kàddu laay laay wax sax tey man sama kàddu bopp laa doon wax waaye ñoo ma woo dugal seen kàddu ci biir te ku eh, nañ laaj ki fi xalifab sëñ Amsatu Lo ak xalifab seen kàddu euh, mi ngi nii ci man te ñoom ñoom ñoom lañ denk barab bi xanaa barab boo denkaanee sam xar boo demee ba di ko laaj borom xar ma nga kan ko dénkoon nga koy laaj ngaa bu nag suñu am satu lañ ko dénk bu ñuy laaj ngaa bu ko laaj waa kër suñu am satu léegi loolu mooy wax ji léegi na ñëw kenn mënu ko fee tere léegi nag wax lañ li ñuy jël daal di ko yóbbu te te te koy def nan ko bàyyi kaaraange sëñ Basiru nag xaaruma ci sëñ Moussa xaaruma ci sëñ Koso xaaruma ci keneen fi ma nekk lu nar a gàkkal kër sëñ Basiru sama bakkan bi laa ci gar te li wax lépp mu doon ay salte salte ki xajam xajam bu demee ba dal ci kaw yoonu murit bu boobaa sëñ Muntaxa dana ci janu waaye kër sëñ Basiiru kenn du ko ci appelé loolu daal mooy kaddu yi keneen ku ci amaat kaddu yu muy yu muy def mu def ko waaye soxna Ayda daal dalal ak jàmm ci ngaabu Seex Béthio la ne woon sëñ Modou Lo ngaabu imam sëñ Modou Lo ngaabu imam sama maamam moo ñu dalaloon moo moo dalaloon sëñ Touba kon nag nañu dalal maa la ne dalal ci kenn mënu laa aaye ngaabu nag yi nga joxe woon yi nga fi joxe nit ñi lekk nañ ko man nag am naa juróom benn nag ak gileem man naari kajoor yi xaar man naa cee tudd ñeen ñetti nit rek mu ñu yóbbaale ñëpp xaarim jaañ ak ak ak ak Balla fàllu Sénégal la ma war a soxla ci màggal gi lépp def nañ ko ak ak ak waa ndar yi ak géwéli Louga yi ak ak ak ak Kër Baay Mor Gise ak waa Kër Baay Fati defal nañ ma li war a am ba soxlawu dara waaye nag lii ñu leen di jox ñu naan nag yi ku ko lekk poset laak ma tegal la ci fanweeri seex ak juróom-ñett yu dëkk biir Touba dem nañ ca noor ba tawagut ci soxna Ayda Diallo ne ko kat li ngay defal waa ngaa bëgg nañ ko ba jox na leen ñoom ñëpp kenn ku nekk la war ci sag màggal ba ña ngi koy def Touba nag yi Touba nag bu daganee naga di ngaa bu daganut loole ku ko jàng ci alxuraan wala nga jàng ko ci fekk nag ma ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu